Yaay Fall Mbossé la ñu fekkaat tey fii ci Touba kër Adja Ngoy Fall Serigne Askia Touré maa ngi lay nuyu namm naa la borom safar gu rëy gi raw naa leen tubaarikàlla samay doomi bopp samay xarit yi nga baax rek ngeen dox lu wax macha allah waaw kay maa ngi nii sant yàlla bu baax du julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow doom mu rocc tàndarma jooju may ma tubaarikàlla yàlla yàlla dolli jàmm may ko tàndarma may ko tàndarma tàndarma yàlla fi yàgg téer may ma tàndarma ji di ñaan sëñ Mountakha yàlla fi yàgg téwér Mbàkke bala isa yàlla yàlla doolu jàmm ñaana sama yaay yàlla na yàlla guddal fanam wéral yi cëram ci barke Seydou naam xam yàlla yaram yaram wooy daw la yëpp macha allah mais mais Mbose nag bu ñu wax taaru yaay Fall yow da nga da ngay da yaay moom laa du incarné dama ko doon dama bëgg Serigne Bamba ba mu jeex bëgg maam Cheikh Ibra ba mu jeex ma doon ko loolu kan moom ñoo ci mën a génn fi mu toll nii mais li nga def nii dafa mel ni da ngay critiquer sa nawle artistes yi nekk ci showbiz bi ne leen affaire bi nii la nii la avant ndigalu sëriñ bi yow xam nga tegoo xef déedéet make up oo déedéet defoo dara lu sëriñ bi aay dara mais gis nañ ay célébrité yoo xam ne sëriñ bi dafa aay ñoom ñu def ko waaw mais ñooñu ñoom nañu xool taxaw ci seetu xoolaat seen bopp <laughs> mais man bàjjat lii ma doon lii dama ko doon <laughs> incha allah xaw ma dakaar de mais Touba sil du ma topp xef du ma topp weer du ma topp am naa ci ñoom sax am na si ñoo xam ne nee nañ duñ génn seen dal yi parce que buñ génnee ndigal li dañ koo def ñoom. xanaa déggoo ma man fu ma dal ak fu ma dalut laaj ci bokk yemale ruq ak bitim néeg laa ci yemale sëñ Mountakha borom jàmm ak jamono borom mbég mi dëgg dëgg sëriñ Bamba bëgguma lii ku dugg ci ruq ku dugg ci néeg ku dugg ci parenteer ci boo duggee ci ruq lal génn lalle loo wute kalal ak kalal li dañ koy lal man maa lalul maa laalil maa pose maa defu dara maa def nii boo gisee ay artistes yu mag ay artistes yu mag yu nekk ci métier bi di teggi ay ndigalu kilifa ba pare ñëw Touba teggi ndigal loolu noonu yow mi nekk si milieu bi est que du la du la métti. du ma métti parce que kenn ku ci nekk nag na nga na nga na mel kenn ku ci nekk ak la nga li nga santé ba def ko kenn ku ci ne la nga yëg ba def ko waa ma li ma yëg li ma wane ci sama xol bi moom laay wane sama kanam Serigne Bamba rek képp don keneen bokkul bàyyil bàyyi naa bu def def naa su ma duggee Dakar nag su ma neexee tubarkàlla mais réew mi réewum jàmbur mii buntu këru gii këru jàmbur gii néegub jàmbur bii bëgguma lii bul sol daal ma sol daal bul sol mbubb ma sol mbubb loo fi jël maa ko def sama bopp te ku ñëw di root si ndax la fi Serigne Touba mayee def du ay caaxaan du ay fo dafa liggéey ba am li mu am comme sëñ Muntaxa bu taxawee ni bëgguma lii nañ ko ko dindil amul ruq amul parentel amul néeg amul biirub saal foo ko mën a defee lu mu mën a doon ak lu mën a xew ak lu mën a am bàyyi xel ni yàlla kenn mënu koo nëbb waaw boo duggee ci nekk dakka sa ba sa xol seet génn taxaw ni fecc moom kan ko koy def defoo kenn sa bopp koy def waaw man nag man bàjjen man sël am naa droit man pose ala xef ala we ala naturel nii rek wii nii mais ñun jël nañ artiste maas jël nañ artiste mu jox leçon de morale artiste yi te moom daa teg ay wee def xef naan artiste yi waruñ teg wee waruñ def xef ku siiw waaw xam nga ko rek bàjjen mu neex mi bàjjen ban la bàjjen mi nekk Thiès bàjjen polygame bàjjen pajan politique mooy réew mi mooy kan Sophie Kata Sophie la mais Sophie moom ah. man bu doon man la man man bu doon man la côté ba mu taxawee du ma fa taxawee xam nga lu tax àdduna tubaarkal dafa dafa dafa dafa yéeme parce que taalibey Serigne Touba la muy taalibey Cheikh tey su ma demoon Tiwaawan bu nee Tiwaawan bu fa kenn def dara su ko defee rek su ma ko defee rek am na lu ma jéggi du ma ko tiitaroo du ma ko namoo duma ko sagoo da koo xeebal jàngoroom bu dee yaa ko rey nanu kaf kaf la mais dëgg nañ ko teg su ma demoon Tiwaawan tey ñu ne bu leen bul bu fa kenn def bopp neen su ma fa defee bopp neen rek tegg naa war may kilifa ba ca dëkk ba comme Serigne Serigne Mountakha moo fi Serigne Touba moo ni nangam yaa may dégg Serigne Mountakha moo ni nangam bu ñu ko kafe bu ñu ko reetaan nañu ko jëfe bu ñu paree dem ca théâtre ba kafi fo am fa sunu weccet mais Serigne taxaa du wutukaayu weccet du buzz nga lu tax dafa tere loo xam ne dañ ko war a bàyyi nañu kaf li mu tere sax yàllaa ko jëkk a tere warmaal dëkk bi waaw mais nañu warmaal dëkk bi ku dugg Touba nag warmaal ko boo génn Touba defal la saf mais man laa wax fi ñu placé man bu doon man du ma placé parce que dama koy rus parce que day mel ni tubaarkàlla la ca ginnaaw leneen la ñuy def mais am na loo xam ne nag ku ko def man na laay jëkk mais ñun bu ñu ko defee du ñu jëkk waaw mais Badiane ñetti sax sellal de telle maanaam ñetti fan yi ko wax maam. maanaam mu yegg ñu yeggale ndigal bi. ko wéyalu ko waaw Touba moom loolu saf leen a wax xaw ma nag dakaaru ak fenn fa ma dëkk ndax man mi di wax ak yow Touba gii boo fi duggoo ba nëgë ni boo fi duggoo ba nëgë li fi ne loolu laay def su ma génnee Dakar nag lu ma neex man naa ko ndax Dakar dëkkub kenn sunu dëkk ñun ñëpp. mais Touba gii ma fekk borom kër gi borom kër gi wax li mu wax li mu wax loolu lay def. gis nañ ay artistes yoo xam ne sax dañoo préféré bañ a ñëw màggal si parce que ndigal yooyu ñoom mënuñ ko parce que ñii ne leen ay complexe lañ bu ñu mag yeewul wala bu ñu tawul ay pause dañuy ñaaw te mënuñ ñëw màggal te duñ ñàkk def yooyu yëpp dañuy préféré toog tub Dakar. seen jongoma des jongoma jaraa des waaye boo taaroo jongoma keneen du la yóbbaale make-up du la yóbbaale xef du la yóbbaale ay ong du la yóbbaale soo puudaroo dem boo puudarul dem. boo takkoo dem boo takkul dem kon ki ñu ñi mu déranger ba màggal si wunu ah ñoon ndax seen muru desut may këpp teelaa ñëw màggal si nga toog ndakaaru may këpp foofu toog màggal. est-ce que du ngistal la ñuy ñëwee Touba ngistal kum ci doon rek kum ci doon man na bañ a doon ngistal man na doon bés parce que man maa ngi ñëw ne te du ngistal kenn dañoo te du ngistal mais yëfi du ngistal gëm-gëm la kii nag ki nga xamante ne li bu ko defee moo koy arrangé. da koy def bu ko arrêté bu ko arrêté wu du ko def mais man bàjjan laa wax man laa wax nii ma mel nii tubaarkalla tubaarkalla yal na yàlla laf cat guddal fan wér ko mais nii la mel naturel. bu la sëriñ bi joxoon wàccu waay wala ndigal na la waxtaanal ak sa nawle yi nekk seen métier bi ngeen ni ngeen ni ngeen ni influencer nit ndigal yi ñu koy respecté. xam nga lu ma leen di waxam. maanaam sëñ bi doxaane la doxal loolu ba ñoom ñi nga xam ne siiw nañ bu ñu defee. askan wi dégg ko wala ñu gis pour ñu respecter euh, sàttuwaayu dëkk bi. parce que fenn rek laa la fay fenn rek laa la fay laa la fi waxee léegi nee na nga ma am nga ko def am ba nii di nii wane def na kooku rek tey sama xarit la sama doomi ndey la muy Sophie dañoo bokk nday dañoo bokk lépp mais loolu mu def tey jii mën na influencer xale yi ci leneen mën a dugal ci xale yi leneen. mën na indi ci xale yi leneen. parce que mën nañu ni moo ñun ñun la nañu yëpp xoola kii li mu def dañu koy def. comprendre nga mën na ni lii ñu def dañ koo def pour nii rek mais xoolee ko def parce que ñoom référence lañu tey seen musóor gi ñu bëri ngi ci toppandoo koo wax ma naan dama wutu musóor ñaata bi ak ñaata mètre nga mën ko 4 mètre 5 mètre dama koy musóoroo tey bëri na xale yu jigéen yoo xam ne bëri na xale yu jigéen yoo xam ne tubaarkàlla la ñuy sol jiin def seen di jël musóor teg ca te day jongoma mais référence la pourtant mën naa def foofu ne lu tax mënuma def bopp nen su ma defee bopp nen njariñ ñu set laa yor njariñ ñu doxas mais du ma def bopp nen parce que bëgg naa man kuy xool ci man nga xool ci bàjjen bi day musóor damay musóoru mais tey bu fekkee ni maa ngi toppandoo ni bopp na laa def ku ma bëgg man xool ma ci la may def mu def ko te fekk sëñ Muntaxa tere ko yaa ngi jéggi sart ya te nag ku nu fekk sa kër nag ku nu fekk sa kër nga ni bëgguma lii bu ndoo fekkee def la ko duut la baaram tooñ nanu la ku ñu fekk sa kër nga ni bëgguma ceeb ñu toggal ceeb tooñ nanu la këru diine yëpp benn lanu tarixa yëpp benn lanu mais kenn ku ci nekk la nga moom jox ko nit kamu moom kenn ku ne moom moom këram kër ajaratu ngoy faal gii nga ñëw te bu nee salaamaaleykum mu ni bëgguma lii ku ko fi sañ a def mais moom ni muy màggalee ñu koy critiquer ci réseaux sociaux yi danoo ko gisee yow kan ni muy màggalee la ñu màgg ñu koy critiquer nee nañ or yi muy takk ci ba tey defut bopp neen de ci lima ma gis mi ngi def kolam ay oram moo ko moom mi ngi koy takk moom lamam mi ngi koy takk te ci këram la ne li sëriñ bi tere lépp defu ko ah la oore léegi lan la oore ci këram ko jënd mu jox ko mu tag ko lan la bi bi ah boo ko wutal përëm ba xam përëm bokk na ci màggal gi aayul daal déggoo ma dama ne wutal përëm nga tag ko da ngay xam ne ci màgg gi la bokk lu waaye am tag sama wiis yi sama wiis bari waaye ci màgg gi la bokk sama wiis yi ci màggal gi la bokk kan moom a dab ni ma tekki sa jaaro yi ku may dab ni ma tekki sa jaaro temps moom ko ku may dem ni ma sumi sumi bi temps moom ko dama ni nanu jox war ma dëkk bi nanuy jox war ma dëkk bi kenn ku ci ne dëkk ba nga ne ak ka nga fekk fokk fonk ko kenn ku ci ne bëggoo ñu fekk fa nga nekk ñu ñàkk la kes wala ñu ñàkk laa teral kenn ku ci ne bul xebal kenn leen la mu doon ku ne nag la nga doon doon ko la nga nekk nekk ko waaye nit ki ci li mu ne bàyyi ko ca la mu ne koo xebal jàngoro bu dee yaa ko rey sëñ Muntaxa la ñoom moom la ñuy tiitaroo moom la ñuy sagoo moom la ñuy ndamoo kenn gënuñoo jongoma eh, eh. mais Mass daanoo mais bul bul tàgg mais sa cant yi daanu yore yi nga kenn gën ñoo jong ma. parce que Serigne Touba. waaye li sëñ mu tax a def dañ li mu bëgg koy def. du ma daanu. du ma daanu. du ma daanu mais dama ni. mu ran. na raay jub. na raay jub sëñ li bëgg nanu ko def. du tee kenn jong ma. nañ waxante dëgg. tëjuma. xam nga sëriñ bi